di ko ci loxol sunu xarit sunu soppe sëriñ Seydina Diop Bichri mu jàllale ñu nuyoo bi ak ziar bi ci mbooleem waa daara jëpp comme ni ko sëriñ Seydina Diop Bichri waxee ñu fas yéene laay biirante fàttalante ci jotaay bii nii incha allahu taala ak yeneen yi ak yeneen yi ñëw ci kanam yépp incha allah fas yéene koo tënk ci ay tomb yu wuute waaye di ci bàyyiwaale xel bu baax euh, fi jamono ji toll ci xew-xewi diine yi nga xam ne danay faral di romb te jamono ji ñu toll nag xel yépp day dem ci bis bu mag bi nga xamee ne moom lañ dëgmal di màggaluk Tuubaa moo tax incha allahu taala fii nu koy àgg jotaay ñu koy fas yéene jëmale ci wet googu waaye ku ne màggal ak Tuubaa nag sa xel dana dem bu baax ci li nga xamee ne moo ko sabab muy demuk sëriñ bi ci géej gi tukkib géej gi xam naa kon jotaay yi dañ koy jëmale ci wet googu noonu incha allahu taala ci ab tënk jukki ci li nga xam ne jàpp nañ ne waxtaane ko dana am njëriñ tey du naqaree jàpp su ko defee demuk sëriñ bi ci géej gi lañ ci fas yéene waxtaane lépp incha allahu taala la ci ëpp dañ koy sukkandikoo ci mbindum sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana nga xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko doon nettali boppam tukkib géej gi ci téereem bi ñu wax irwa u nadim irwa u nadim min xubbi azbil xadim ak tamit mbindum kenn ci naari gànnaar yi kenn ci kilifa naari gànnaar yi ku ñu daan wax sëriñ Muhammad Jang Xasan xam naa dañ ci waxtaane li ci ëpp ci mbindum ñaari kilifa yooyu noonu nañ koy sukkandikoo incha allahu taala su ko defee demuk sëriñ bi ci géej gi am na ay sabab am na sabab zahir ak sabab batin bu dee sababu batin bi bokk na ci li nga xamee ne sëriñ bi ci boppam moo ko waxal boppam ci benn leetar benn bataaxal boo xam ne mu ngi ci mbindum Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana sëriñ bi wax ne wa sababu xaybati lbaida an allaha tabaraka wa taala araada fi l azali an akuna shafian li jamici talaamizati wa xaala bayni wa bayna nasara wa adxala fi xulubihim fi xulubihim alxawfa minni wa faalu ma faalu li allaa akuna mutanassiran li anni law tanassartu la daxaltu nnaara waliyaasu billahi taala walakinna aasamani llahu taala min annaari wa min kulli ma lam yarda lii bi jaahi rasulillahi salallahu taala alayhi bi alihi wa li sabab sama tukki bu sori bii mooy yàlla dafa na namoon ci azal ma doon jëmm joo xam ne damay ràmm damay xettali mboolem samay donga yàlla tamit daa bëggoona dox sama diggante ak tubaab yi moo tax mu tàbbal ci seen xol ñu ragal ma ba def liñ def ngir loolu bu amutoon danaa soppi ko am nasaraan te bu loolu amoon danaa tàbbi kërug safaan boobu la yasubillah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 wax ne li sabab sama tukki bu sore bii yàlla ci boppam daf ma nammoon a dara jaal waaye waaye tamit ma doon jëmm joo xam ne damay ràmm mboolem samay donga samay taalube moo tax ma liggéeyali woon saa borom ak yonent bi sallallahu ca dawme mom lañ wax moom la wax benn tay kon loolu len la ci sababu baat ni nga xamne serigne bi moko netalil bopam bokk na ci sabab baatin tamit bokk na ci sabab baatin yi nga xamne tamit Cheikh Abdoul Ahad Mbacke radiyallahu anhu moko netali wax ne Cheikh Abdoul Ahad wax ne serigne bi gannaaw bi nga xamee sanki na Touba bañ tek juroom ñaari at wala ba juroom ñaari at yu manqué tuuti ci wéru ci wéru koor ci atum 1312 sëriñ bi da doon li antikaaf ci daaru xudduus mooy jàkkay jumaa si mbàkki madina jooju bi muy def li antikaaf yonentu sallallahu alayhi wa sallam daal di koy feeñu ànd waa ahlu badr sëriñ bi daal di koy xamal ne ko daa bëgg a bokk ci mbooloo mii di waa ahlu badar sallallahu alayhi daal di koy xamal ne ko mbooloo mii kat li ci daan boole nit faat na muy tuur deret la cay boolewaat nit nag ay natt lay doon te nit ñëw na ba tàyyi ba toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo du bëgg tamit lu dul li nga bëgg waaye suñ ko joxee nattu bi day dem ba ci yàgg dootu ko mën a dékku daal di fay jaare yàqule te yow da ngay sama waaye bopp joo xam ne bëgguma lu mel noonu dal la salaa salaam daal di koy daal di ko cay tegal ne ko li tee nga nekk xutbu zaman daal ñetti weer la waaye bis ni tey mën nañ laa tëbal ñetti weer yi nga doon xutbu zaman sëriñ bi dal koy xamal ne ko loolu di dëgg la baax na waaye nag saa bët jël na jël na loolu te lépp loo xam ne ruux gi mën na koo dékku sama jom àttan na ko ci la sëriñ bi daal di jaayante gi sallallahu alayhi wasallam ci liggéeyal ko liggéey bi nga xam ne sëriñ bi wax na ne maa ngi ko façon ca assassin assassin 1301 mooy at mi nga xamee ne ci la yoonu murit sosu donte nag maa ngi ko fésal ci atum jay chasin 1313 mooy at mi nga xamee ne ci la sëriñ bi dem ci tukkib géej gi wa azhara al xitmata ama jay chasi wa xalbuhu admaraha min asasi noonu la ko sëriñ bi waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ko ciy tegal ne ko il faut sa dëkk bii nii sa dëkk bii nii di tuubaate tamit nga génn ko ndax aar nga ko aar goo xam ne dara lu la naqari du la fekk lu ma waral sëriñ bi bi mu wooree ca at mooma daa di dem Mbàkke Baari ci Jolof bu dee sababu zahir bi nag ci tënk mën nañ rek mooy ceddo doy jaxase gi ñu doon jaxase diggante siñ Tuubaa tubaab bi nga xam ne dem nañ ba mujj gi gouverneur général bi nekkoon Ndar gis lu nuru preuve nga xamni yag nañ ko kalamé ak sëriñ bi yag nañ ko kalamé yàgg nañ ko jaxase ak sëriñ bi waye mom daawut jek jek rek daal di da dugg ci mbir dafa dem nak ba gis lu nuru preuve preuve bi nak cheikh mahamadul fadal mu cheikh khadim moko netali wax ne sambalaw bi dafa ñewon jolof tase faak jëmm ju ñu wax ma abdullah Samba Lawbe waxtaan ak ma Abdou Lo ba xamal ko ne ko maa ngi doon defarlu ca ndar ci diw sàngam sama kaase mooy bi ma saane bind lettre li ñu ko daan tamponné Mame Abdou daal di jàpp woowa dem ndar daal di waxtaan ak jëmm jooje ne ko Samba Lawbe de sama xarit la lu dafi doon defar ab kaase jëmm jooje ne ko waaw ne ko aan ma xool mu ko mel ni kuy isin ci li jël kaase boobu daal di koy tamponné ci aw këyit lem këyit yu yóbbu mbaa gi daal di ciy bind leetar bind ci man Samba Lawbe ak Ahmadou Bamba yow gouverneur général bi ba nga xam ne ci sa kaw lañ jëm nga xamal ko daal ne ko moom dañuy jihaat dañoo fas yéene jihaat ak yow loolu nag mooy preuve bi nga xam ne ci la gouverneur général bu Ndar sukkandiku ba wóolu sëriñ bi ndax yor na ab leetar boo xam ne tàmpone nañ ko te turu serigne bi ma nga ca ci la gouverneur général nak bu ndar digal commandant bu Louga mooy Leclerc pour mo lu serigne bi pour mu ñew wuy ci ndar waye bo fekkon na serigne bi am gantu wuy ji ndax boobu jotagul ndigal lu bayiko ci boromam jaar ci yunus sallallahu salaahu wasallam lol mo waralon mu yabalon rakam loxol joram borom darul mu'ti bu wuy jil ko waaye nag rambaajkat ba moom xamaloon na commandant bu Louga commandant bu gouverneur général bu Ndar xamaloon na gouverneur général bu Ndar ne ko même bu ngeen ko wooloo tamit du du ñëw loolu nag taxoon nag mu gën a mer nag moom daa di digal commandant bu luga ñu ko na waajal ab arme pour jëli ko sëñ bi wax nañu bi mu yëgee loolu dafa yónneewaat maam na yoonu ñaareel mu dem fekki commandant bu Louga jeewal xamal ko kan ne ko jërul yu sonal seen bopp di di waajal ay ngànnaay yu mel noonu ndax fii moom aw ay amu fi te xaw ma ne woon sama ñàkk wuyu si tollu na leen foofu comme noonu demee moom dana ñëw daal di yebal boroom dar Muxti yoni ñaarel pour mu fekk tuba bi jewal xamal ko lolu way mam Cerno nee na Bima ma ba wax interprète bi yema ma sëriñ bi yoni pour mu wax ko bi commandant bi kooku da bokkoon ci noni yi ci ci kat yi lima soppi samay wax lima ko lima ko waxlo ak lim wax dafa te ci maanaam te ci xarkanamu tubaab bi ci laa ko ci laa ko xàmmee xar kanamu commandant bi ni mu soppi ko ci laa xamee ne jëmm jii nii li ma ko waxloo ak li wax daa wuute. maam Thierno nee na ci laa dem woy benn interprète bu ñuy wax Baraan Jaw pour wax ko kàddu yi ma sëriñ bi yónni mu jotali ko tubaab bi bi ma ko waxee li ma sëriñ bi. digal bi ma ko jottalee commandant bu Louga bi borom daaru neena ci la gis borom daaru neena ci la gis xar kanam tuba bi daal sop sopp sopiku commandant bi ma xamne kon kele da soppi won samay wax li ma wax lo da soppi commandant bi ne ma kon noonu la demee kon man ngaa delu ba demee nga jox ko bataxal bi wax ko ne ko bu suba mu ñew fekk suñu fekk suñu fii nii ci jeewal lu jar muy dem bu demee wax ko ne ko subaa mun na ñëw kon fekk suñu fii nii ci jeewal daal ko ci tegal ne ko mën nga ànd ak interprète bële mu wan la yoon wi waaye kooku daa bokkoon ci jaxasakat yu mag yi bokkoon ci noon yi boobu nag mi ngi def ay pexe ngir bëgg mbir mi gën a lënt ngir sëriñ bi waxtu yi war a ñëw weesu bu ko defee mbir bi gën a jaxasoo gën a lënt maam Thierno muy tayal tayal loo daal ne ma naaj bi dafa tàng dem ba ci yàgg mu ne fi nii dafa guddi te réeraguma dem ba ci yàgg daal ne ko fi nii sax dafa dama gëmmentu bu daal nga nga nga dem daal di koy boole keneen daal di ci suuf na ko pour mu réeral mu réeral mam kiarno manam bu mu xam yoon wi jëm bakke Baari fa señ ba nek mam kiarno neena nak bima bi mbirum waa ci la ko bayyi daal di xol bidiw ba nga xam ne tim mbakke Mbàkke Baari fa sëriñ ba nek ma jawal ko neena bimay ag tombek boori njël mam kiarno neen bimay ag tombek waxtu njël boori njël fekk naa sëriñ bi ci jullikaay bi boobu tamit defar nañ bagage yi yëpp ñaan bi ma agsee rek di wax sëñ bi daal di njëkkantoog ma ne ma sama diggante tubaab bi tilim na tilim koo xam ne laaj na ndox mu bari ak saabu bu mag ak fóotkat bu am doole daa ne ko jotali ma fas weenee ñaana ma jotali ko mu war daal di may wax ne ma dénk naa leen yàlla mi nga xam ne loo ko dénk du sànku dénk naa la jàng jàngale ak mbay mi mën ngaa nekk fii nii ci jolof li fekk mi ngi mën a nekk soo ne mën ba mënantut a nekk maa nga noppi li nga doon def mën ngaa dellu bawal wala soo nga sanc Tuuba wala boog benn ci sanc yi ma sancoon foofu la sëriñ bi tagato ñom nga xam bamay dem di wuy ji fukki nit kep la andal nga xam bis boobu nonu lepp lu metti won murid rek neex na waa ahlu badrin ndax ñoy ñi nga xamee ne ñoom la ko borom bi bolel ci tukki bi muy ruhi malaika yi nga xamne ne doon jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xare badar kon gannaaw bo xamé ni sëriñ bi jot na ndigal lu bàyyi ko ci boromam jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàggatoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu defal ko kaaraange loo xam ne dara mënu koo bëtt ci lor jëm si ci moom comme ni ko sëriñ bi waxee te bind ko wax ne wa jaala al muxtaaru sallallahu alayhi bil ali wa man walaahu lahu xijaaban maanian min addarar summa lahu xaalam shi la taxsha al garar wax ne yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam defal na ma kaaraange loo dana dox sama ak lepp luy lor ba noppi daal ne ma doxal dem tabur bu ragal dara sabaram tamit boole kok, wa ahlu badrin nga xamne ne suñ tubaab ne kep ku nara a dëgmal képp ku nara jemalé ab safan ci man yaag wa ahlu badri yena koy man am mani min al ida bi ghadri fahuwa mu fahuwa mubarizun li ahli badri kon xam naa jotaay bi moom gàtt na lool mel na ni waaye daa tombeek waxtu géewi jege fii lool moo tax xam naa ñu fas yéene koo tënk foofu noonu rek insha allahu taala su ko defee bii di ñëw nag ñu tàmbalee ci état bu jeewal wéyal insha allahu taala ñaan lépp lu ci njariñ yàlla nañ ko bokk jariñoo lépp lu ci njuumte yal na ko borom bi jéggal ci barkib sëriñ bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi